TDKC 313 tuuba Daaru Koso communication di kër gi itoo lépp lu jëm ci wàllu téléphone portable ak i accessoire wala mbirum électroménager moo leen di gunge fii ci académie Minane ci màggaluk Touba atum di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér لخترت يا الله الجبار دون الإنقاذ كل الإداد بنفسي لاخترت يا الله كرهتني كل في كبر بلا كل في يا متكبر تلك يا الله يا غير القدم بالبر والسلي والرلوان يا الله يا بارع الخلق قد لنا فدعونا سم وخن لي الأجر للجماعة يا الله أنت المساور قل للنبي بسارا وساورا ليادو na المكر يا الله غفرت لي كل سن بالغاد أتيت به لذنب سكريا يا رب يا الله غفرت لي كل سن بالغاد أتيت به لذنب سكريا يا غفار يا الله متاعي بلا سبب مني عمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سهلا فاخ مسألتي فلا كسب ريايا وأبحي الله لغوت أزمان اللج يا من له أموره وخنت لي رصايا رزاق يا الله فتات لي كل بعث بن كنت ذاتئا لأوليائك يا فتاة يا الله علمتني القيبات طافت منتميئا أتى الأليم لاسيم علمت يا الله خبرت يا قابل أسواء وانصرفت لخير نبياك الأدار يا الله بذاك يا باسط أعمال لي بريدا فاذكر مبعثتي دارين يا الله بسات يا باسط الأعمال لي بريضا فاذكر مبعثتي دارين يا الله قبلت يا قافل أداء لي وما لو li xayri nahwi bi qasdin minka yaa Allah rawaaka yaa raafi'u daarayni martabati bila inqitaa'in bi fadlin minka yaa Allah rawaaka yaa raafi'u daarayni martabati bila inqitaa'in بفضل منك يا الله رواك يا رافع الدارين مرتبته بلا انقفال بفضل منك يا الله أنت المي ثلاثي لا سبت إيسة خلا سن واحد بل فيك يا الله أنت المسل لاسي سلالي ستي الإنس والجن سيطان يا الله أنت سميع لاسي ناجيت سمانا وبالمصارات لي قد جدت يا الله أنت البصير لاسي li xaada jumlataama li xtarta dunya wa uxra minka yaa laamu akamta yaa akamul باخي بكون يا سا فوزي بما قاب من بسراك يا الله على يا أدلو داي بخير لقاك ولا لغيري ولي قد كنت يا الله أنت لطيف ناسي قد كنت لي أبدا لطفا عجيبا ياسي ذو الفكرة يا الله TDKC 313 Touba Daaru Koso communication mooy kër gi faj seen jaaxle ci lépp lu jëm ci wàllu téléphone portable waaye lépp lu jëm ci wàllu matériel électroménager waaw Touba Daaru Koso communication nekkee fii ci rue Escarpette angle Rafanel gérant bi di Serigne Abdoulaye Ndiaye ànd ak Serigne Moustapha Fall ak Cheikhouna Khouma bu ngeen déggee ñu naan spécialiste ci wàllu écran fii la fekk baax rawatina nag bépp pièce bu ngeen bëgg a changer yéen réparateur portable yi wala jumtuwaay yi ngeen di liggéey ñoo ci mën keneen ku dul ñoom kër gi spécialiste lañ ci lépp lu jëm ci wàllu écran mën ngeen a jokkoo ci numéro yi ngeen di gis suñu ñaareelu place mi ngi nekkee fii ci dakaar salle de vente rue Moussa Diop angle Escarpette waaw lu jëm ci wàllu accessoire portable wala électroménager bàyyiwuñu dara moo xamuy muy écouteur chargeur wala lépp lu soxal portable wala électroménager moo xamuy télévision offeur MP3 dernière génération iPod bul tuuf waaw jokkoo leen ak geran bi di am ni xuma ak sëriñ xaadim xuma wala ba tey ngeen ñëw fii ci suñ ñetteelu place bi nekk ci Petersen avani Sénégal moom itam lépp lu soxal wàllu portable ak i accessoire am wala électroménager mën ngeen ko fay fekk xool leen yii bagage yu taaru da ngay xool ba fa sa bët yam geran bi di xaadim Njaay ak bàcci xuma mën ngeen a jokkoo ci numéro yi ngeen di gis te TDKC 313 ñooy ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général kulu murit mu yàgg fi lool te ànd jëm màggal gi mooy sunu ndam jërëjëfe màggal gi